waa Sénégal man la Gumba Anta Ndiaye géwalu Matar Ba taalibe sëñ Moustapha di sëñ Babacar Sy Abdou di ñu sante yàlla julli ci sang bu tedd ba di Seydina Muhammad di gërëm suñu ñaari waajur di kontaan bu baax moo tax tey ñu woo macha allah GP TV fas yéene wax ay kaddu yoo xam ne kàddu sant la ak kàddu ñaan muy sama xarit di sama kilifa muy PDG Ale Fatim Mboup immobilier di taalibe Serigne kër si fan yëpp dañ doon waxtaan sama programme ma jël programme bi ni ko aale ren dama la tuddee programme bi muy la 1 avril aale ni ma gumba lan nga ciy def man ko damay def ay don ndogu yóbbu ko ci daara yi ak ci yi ak ci prison yi bu guddigee ñu def jàngi macha allah woo tagkatu Seydina Muhammad yëpp aale ni ma dinaa la jëndal nag boo xam ne duñ ci mën a def ay ndogu yóbbu ko ci daara yi ma ma jàppale la taxawu la ndax yow sama rakk nga sama xarit nga aale nag li naan koo xamul na nga koy def nam la dafa tax chaque jour du ma dëkk ci Ablaye Mboup di waxtaan ak moom di ko xamal ne ko yow nit ku baax nga nit ku am masàllaa njariñ nga fii nga dëkk ndax lu baax li ngay def ci Tiwaawan gii nga ko njëkkee ak say mbokk bi nu wooree ñetti fan ñeenti fan da jël oto def ci ceeb bi jox ko sa mag Ablaye Mboup di ko séddaleel waa Kuli gépp ak mbokk gi fu ceeb war a dem rek na fay dem pour nga jàppale ko ñun social ale man dama lay bàyyi yàlla yàlla mi am fay yal na la yàlla fay man nag ku ma defal lu baax dinaa ko baa duna bépp yëg ko ndax sikkat laa balaa maa dee ci rondal ñëpp yëg ndax yow yàlla moo ma booleeg yow mi ànd ndakaaru ànd boo xam ne ànd bu sincère la àndu dëggul ànd la boo xam ne du àndu jayante lii nii sax amaana bëggoo ko waaye man maa ni dama koy def man maa ni damay woo ñi nga xam ne ñooy waa yi nekk fii ci Tivaouane ni leen kaay leen ma sant sama mag sama kilifa sama PDG ki nga xam ne heure bu ma jaaxlee Ndakaar gis ko macha allah wax fa dëgg yàlla sama rangooñ fer kon aale maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla may sutura may la gudd fan may la mucc gu rafet ba projet yi nga dëtmal macha allahu rabbi nga àggale ko ci barke Seydina Muhammad ci barke weeru koor yi ndax yow nit ku am qualité nga kuli gii nga dëkk nga suñu tuteur nga suñu référence nga suñu idole nga yàlla xam na loolu kon nag ñu lay ñaanal yal na la yàlla gën a jubóoleeg say mbokk ndax yow boo amee rek macha allah sa mbokk yëpp dinañ am te yow nit ku mën a partagé nga barke Seydina Muhammad képp koy àndal nag yàlla boole ak moom macha allah maa ngi seedeel ni ale fatim lépp lu muy def lu baax Tiwaawoon gii la ko jiite ci ay mbokkam la ko jiite ci xadara kër Seydi Hadji Malick bii la ko jiite li may wax wóor na sama sëriñ sëñ Moustapha si bu sëriñ kër si Abdou wóor na tagkat yonent bi nekk Tiwaawoon yëpp waa kër musa ale wóor na Pam Malick Mbay Caatu Mbay Donde wóor na Abdou Aziz Mbaye wóor na Duut Kenn Mbay wóor na képp ku nekk Tiwaawoon rek masàllaa da nga toogal fi xadara kër Seydi Hadji Malick Aale Fatim fu mu la gis yaakaar nañ dalaa war a defal terax kon PDG taalibe Serigne Babacar Sy maa ngi lay gën a ñaan maa ngi lay gën a gën a gën a ñaaxaat macha allah nga gën a macha allah lépp loo daan def rek nga yokk ko yàlla ubbi xéwali ubbi sutura gi ba mu saawaan baawaan ci barke Seydina Muhammad te yàlla jubale la ak nag sa soxna muy Adja Mbaye Adja Mbaye ku baax la ku mën a togg ci mbana la yàq ci booli te nag aale maa la ko ñaan nag maa def déclaration boobu Adja Mbay bu mu am wujj bu mu am wujj ndax nit ku baax la kooku mooy baayu Cheikh mooy Cheikh Mboup mooy mooy mooy mooy baayu mooy baayu macha allah mooy baayu macha allah waaye ki ci des mu Ahmed Mouhamadou Rasulilaay Adja Mbay yow daal dundal ba say may di baawaan te yàlla gën laa jubóoleeg sa borom kër merci Allé Fatim Mboup